jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax bu baax a baax di leen wax ne générique bi door na bàkk ba tàmbaleeti na ñoo ngi fii ci biir émission bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci supporter waaye bu ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci mbër yi ba tax na tey nag mbokk yi ma dal la ñaan ñoo xamante ay xale lañ ay ndaanaan lañ kii nga woowee géejawaay kii nga woowee yof xanaa ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu doog waxtaan wi Youssou Ndour naa la. waaw fay naa la Ouzin ma sant yàlla julli sant bi sant sama ñaar waajur di ak axlu bay rasul bi yëpp waaw du ñaanal sama papa suuf Cambérène bi am tëdd yàlla na ko yàlla yërëm taxaroo àjjana at mboolum jullit. amiin amiin képp ku fa nekk rek yàlla na yàlla yërëm. waaw at géejaay bu ma jógee maa leen sant di leen gërëm di gërëm ñëpp di gërëm ñu mu fekk at mbër mi yow maa leen bu baax a baax. mbër mi kan la. Thiat. Thiat Thiat Yoff nuyu naa la. waa génn maa ngi lay siyaar bu baax di sant yàlla julli suñu yonent bi sant suñu ñaari waajur bu baax maa ngi koy masawu papaam la première fois xam nga ñu toog ma ak dëgg la man kay mosoo papaam quoi. Oh, xam di nuyu waa yow bu baax di nuyu ñu ma àndal di nuyu kii xam nga jàmmalaay suma grand frère Pam Ngom maa ngi nuyu bu baax baax a baax di nuyu waa yow bu baax di nuyu Youssou Ndour xam nga di nuyu waa Géej waa di nuyu suma copain Balla Gaye maa ngi koy siyaar bu baax Aliou Ndiaye. su may waayal maa ngi leen di bëggee bu baax. da nga am ay copain bi Géej waay. copain Géej ñaari copain laa fa am Balla Gaye Aliou Ndiaye. si. Ah, loolu moom xéewal la moom Balla ak Aziz Ndiaye. waaw sant yàlla la Balla Gaye xam nga suma suma grand bu baax la saa yu may bëreel damay wax ni mu war a def wax ni ma warul def. donc da lay si waaw. dara néew si. Ah. Eh, xam na ne dama am talent moo tax mu may conseillé su may ma fi tey booyam la mu demee noonu nag est-ce que du moom moo tax ngay jox yooyu loolu. maa ngi doon dégg ci yow. <laughs> booyam la rakam la kii Balla Gaye la moom la gën a bokk ak man. dëgg la faral bu am moom lay faral du ma faral. Hmm. xam naa lool. mbokk gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ba tax naa ñaari xale yi ma dalal nag mbokk yi ay ndaanaan lañ ndaanaan lañ ci wàllu làmb bu ñu ba mu neex bu ñu bàkkoo mu neex kii bu waree ñëw waa yoofu topp ko ah Ngor Almadi ñëpp nekk ci ginnaawam kii bu ñëwee géej waaye parcelle ba jàpp Pikine doomu mbër la te ndaanaan la xanaa ma bàyyi leen ku ci nekk ñu waxtaan ci seen palmarès waxtaan ci làmb waxtaan ci seen avenir u làmb Youssou Ndour naka nga gisee làmb jamono ji ñu toll ndax defe naa ni bi ngay gën a nekk booy euh, làmb gënoon na fee neex ba tax na ñu bay rêvé woon bëgg a nekk mbër naka nga gisee làmb moment boobu ak bi nga ñëwee doon mbër jamono ji waaw làmb ji damaa jàpp ni feebar bi moo ko xaw a kale tuuti rek te yàlla suñu borom wàccee la kenn mënu si dara loolu moo téye làmb ji mais teewul fu mu nekkoon ba tey fa la nekk ñu doon mbër yi fi nekkoon ba tey ñoo ngi bi. feer bu nekk fii ñetti at moo moo ñu xaw a sonal sonal mbëri sonal ñun ñi ñëpp di ànd ki mu ñu àndal nii maa ngi koy nuyu baax bégaay waaw. gis ngeen ki mu bu baax ñu ngi koy nuyu dama kii sax waaye fay laa woo njëkkee mais nag euh, xel day fàttu kañ nga dugg ci làmb. man làmb maa ngi si dugg ma xool 2012. 2012. 2012 su ma juumul boobaa ak léegi huit ans neuf ans. Mhm. ñaata combats nga jotee def. def naa 17 combats. Mhm. 17 combats use loolu bëri na. 17 <laughs> combats laa bëri. ñaata victoire. am naa 14 victoire. 14 victoire. Mhm. ok ñaata 3 défaites wala 4 3 défaites kan ak kan la daal. Diène mhm. Kairé Maama Lamine. ku la fay def neex. Mhm. sa combat ak Diène Kairé. <laughs> ah combat naagu rek ma daan naagu kese du leneen. damaa jàpp ni maa mën maa ëpp doole. te loolu moo amoon sax. mais làmb daa am lu si laxasoo. la moo tax nga jàpp ne yaa mën Diène te yéen ñaar yëpp ngeen nekkoon doomu mbër làmb jooju ñëpp doon ko bàyyi xel. parce que boobu moo mu jiitu si moo mu njëkk dugg si làmb ji. Mhm. xam nga man ma bëri sama deux combats am victoire moom mu bëri woon ñetti combat année bañ ko daanee ane boobu dañ ko tëbal ba mu bëriwul léegi année boobu ñu ñëw woo sama papa. ndax mhm. Youssou Ndour ak kii lañ bëgg Dieng Kéré xam nga ñoom ñu bañoon mu jekk jékki après ñoom ñu nangu xam nga fere làmb dafa doy waar noonu la fa demee ah. nga ñëw jàpp ne yaa mën yaa ëpp doole gis nañ keroog seen làmb. li nga fourni ci effort kele yi nga def dafa bari. waaw mooy li ma la wax rek mooy damaa jàppoon ni maa ko mën rek ba tax ba tey nii nii nii nii nii. déet bu dugg ci loolu la bu dugg ci lool jéen bëri ngeen combat bu neex. dama ne yow moom moo la gën a xam ni. Mm-hmm. daan bëri na ma bëri nañ ñu ñaar mu daan ma mais moo la gën a xam ne moom génn ko ci. boo xoolee moment bi ngeen doon bëree yéen ñaa coow làmb bi ngeen amoon nga jékki-jékki mu dem xaw la bàyyi ak étape bi nga toll booy xalaat loolu est-ce que yaa ngi xalaat revanche sa diggante ak waaw maa ngi xalaat loolu. maa ngi xalaat loolu baax moom tamit moo ngi koy xalaat. dëju père Double Less bi suma grand sama papa Balla mm, xam nga. di ñaanal papaam yàlla na ko yàlla yërëm dañoo daje foofu. Mate Dieng Kéré. daje xam nga nit ñi di wax. mu leen kii ñun ñaar dinañ bëriwaat. te loolu mu jàpp loolu moo am. moom moo wax loolu. moom moo wax loolu. loolu alaa kulli xanaa ma dee wala moom mu dee mais may dund muy dund yàgg yàgg dinañ daje. mais bi mu la daanee bi mu la daanee coow li bari woon na ko dundee en tant que xale yéen ñaar nga na yaa ko mën ñëw mu daan. ba tey nag jéel bi sax xaw leer. bàyyil salteel nag leen daane. non yow <laughs> ñu andi. non ma de. Euh. combat boo amee te booy teg kii bi na nga ko xool daanu mu bu leer. fekk boobu. xelu xale dem na ma mosuma daanu mu fekk ma ci géew ba ma tëdd mais ñu ma àndoon dañu ma jugal mais dama tëdd si li ma tëdd si géew moo ma jug saale quoi waroon na ñaar ñoo àndandoo. cabaxal may dindi cabaxal bi moom mu teg ans man tamit ñëw teg ans mais si noonu moom ñu ma àndal dugg nañ ci biir géew bi di yuuxoo man léegi maa ngi tëdd si géew bi loolu moo ma rey. mais bi nga xalaatee ne daanoo moom ngaa def ko non boobu jarul recours ndax loo xam ne day amaat kay jarul recours te fi mu amaatee mooy dàq. Hmm. waaw. <laughs> gis ah, ma am ci kii daan ko am Youssou Ndour daan ko. Youssou Ndour bu bu tëngee. waaw ah, jour technique sama grand maa ngi koy nuyu. di nga bëgg a baax yéen ñaa jot ngeen maa ngi njëkk daan waaw. après ma bëri laay soppee njaga njaaxum saa fàndum waaw. daanaan nga. rek nga ñëw euh, sa diggante kii booy bi waay. Hmm, combat bu mujj bi. Ah. kii la waay. Bébé Diouldé Bébé Diouldé. Ah. dinaa ñëw ci loolu. Caatu Yoff ki nga dugg si ci làmb. man 2014 laa dugg si làmb. 2014. Mhm. xam nga ni rawee nga ne la deux ans de. Mhm. ok nga am ñaata combat. 14 combat la am. ñaata victoire. treize victoire benn défaite. njaago bi la daan de daanee. c'est franc moom daan waaw mais mais mais mais franc fi mu la daanee dafa mel ni dafa dafa fekk ñaata huitième combat. neuvième combat neuvième combat la la mhm. daan. ok ndaanaan la de franc. waaw ndaanaan la si. mais mais mais làmb naka la la dikkee. làmb dama la ànd sumay grand frère rek sumay grand yu ma àndal nii. di leen topp xam nga ay Vey Ndiaye ay Pape Bouba Diop kooku bëri na Modou Lo sax. Mhm. ñooñu laa daan topp quoi. ay pam ngoom xaw ma ba virus làmb dugg ma ma gis ñu leen daan may am lu ma métti quoi bis ñëw rek ma ngeen bëgg ngeen. ma ngeen mu nga ko. Eh, si waaw. mais bi nga dugg see ci làmb naka nga gisee làmb ak na nga doon toog di seetaan mbëri ñu bëri par rapport nga ñëw takk ngemb dugg ci biir géew bi. non làmb làmb boobu neex na neexul moment bu ñu toll nii. moment bi si neex na neexul waaw. fan nga teg moment bi neex na neexul. la nga ci doon séntu nga ci gisul wala boog xaalis bee duggagul. non li si doon séntu gisaguñ ko quoi franchement parle loo ci doon séntu. bëgg a teral suñuy waajur teral suñuy mbokk moom ma si dugaloon quoi. mais làmb dafa métti. si metti na mais yàlla baax na yaa góor moom lu métti lay lay job quoi warul job lu yomb. sa combat ban combat moo la ci gën a neex sa combat yi nga jotee bu mu bëree. li ma jot bu mu bëree ma Zambala moom ma si gën a neex. lu tax mu gën laa neex. parce li ma li ma ko yóbbu top 5 moo tax mu neex ma quoi. jëli bi nga ko daan noo ci waaw. Euh, Zambala dañ jàppante ma yokk ko dóor ko noonu laa ko daanee ko moom Zambala. si waaw ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. mais nga jóge foofu di def ay performance def ay performance boobaak léegi yaakaar naa nga nekk xale am benn defet yombul ci mbër mu ndaw. waa yombul mais lépp yàlla la nag yombul quoi mais du sama du sama jàmbaar rek du sama guerrier du sama dara lépp si yàlla la yàlla mooy xool lu ko neexee mu teg si doomu aadama. dafa mel ni yéen ñaar ñi ma fi boole bokk ngeen ay adversaire su ma juumul muy ki nga xamante ni mooy Bébé Diouldé ak Boy Sey. waaw man daan naa Boy Sey daan naa Bébé Diouldé. <laughs> lu tax ngay préciser daan naa Boy Sey daan naa Bébé Diouldé. non dama bëgg comme comme da nga ne bokk adversaire. Mhm. si ma lay leeral loolu rek. Youssou Ndour yaa ngi moom bokk ngeen ñaar adversaire. waaw ndax ma tamit ñooñu ñaan ñëpp daan naa leen. waaw bébé Julle daan naa ko daan naa Boy Seye ñoom ñaar laa ku nekk laa mujjee bëri. mais dama gis seen combat yow bébé Julle ak moom di ngeen xaw a bokk euh, manière bi ngeen daanee bébé Julle ngeen toppante. bokkul de manière bi bokkul de. boo déggoon mu meilleur jël fii boobu sama bos ngay jëm. mais moom tamit jël bi mu ko daan rëy na de. yàlla xam na loolu monde yi boo déggoon meilleur jël kenn xamul làmb kenn xamul làmb sama bos la ñuy jël. Youssou yaa ngi dégg caatu Yoff bi. waaw <laughs> ah, ku tàggat sa bopp doo juum mais man nit ñi ñooy gisé ndax nit nga fekk mu def la mëninam daanu la ci loolu dafa jafe. Mm-hmm. ñëpp yaakaar ni daanu nga nga daan ko. mais moom nee jël la moo dàq jël bi nga daan. waaw moom boppam la wax. mais yéen ñaan nangu leen xoolante lan moo tax loolu di ngeen di rusante <laughs> wala wala da ngeen di nappante. non nappante amu dara amu ci. rusante amu ci. xëy na dafa kii rek. moo tax nu mu demee la rek. non man moom naturel nii laa man dama yaru quoi franchement parle manuma sigi xool nit nii. yàlla mooy bindee non dama yaru yàlla yàlla mooy bindee lool. non loolu job la. loolu matière de business la quoi. mais lii tamit business la. non loolu xam nga tey maa bu naa amoon combat hmm. damay xool ma xool ko pare mu metti ci mais nii nii mais nii nii mënoo ko xool. non yooyu sax amuñu combat yokkuñu dara. xam nga jàmm leen seex nuyonte parrainage. mais naka nga ko gisee ak performance mi def ci làmb. non champion la. bi ma koy seetaan bëreegu ma yàlla xam na loolu di ko seetaan muy def muy def performance bu baax bilaa wala taala daaraan la quoi franchement parle. Hmm. Mhm. mais instant bu promoteur ñëwoon euh, ne sa diggante ak Youssou Ndour. man daal maa ngi déglu samay staff lu ñu wax rek. gërëm sama président parce que xam nga bi tamit. man bër laa man bër laa. kenn du ma jàngal bëre. Mhm. bëre mën naa ko ba pare. mais tamit nit mënul jiite boppam. si waaye foog ma am ñu ma jiital lu nu loolu laay def. mais bu ñu àndoon avant ma toog ne ma yóbbaale ko lu gaa yi wax rek. Hmm. su mu wax rek. mooy sama lépp lu mu wax rek. Youssou dégg nga sa waay. Ah, waaw dëgg la ñun ñaar làmb neex la. Hmm. du ma moom. waaw mais man tamit su ma sañoon. Mm-hmm. Gris 2 wala Maodo. wala Gris 2 wala Franc. ñaar ñooñu laa bëgg a bëril. Gris 2 waaw. Ah. loolu metti na de. ba tey dama sonn. faaw ma jéem a xool ñu si kaw. ñu si kaw wax jee fi nekk rek. mais kenn tàngu ci. déet xoolal fii ci caméra bi gis. Gris 2 ak ñoom ñaar ñooñu laa soxla. mais sa diggante ak Thiar Yoff combat du ko dàq. ba tey bu ma ko amee baax na de dama la. ba tey laa la su ma amee baax na mais damay wax man. selon yow li nga bëgg. mbër la. yaa yàgg nañ dox suñu combat. ba mu daanee. si kan la yàqu laaj la yàqu. ba mu daanee bébé dañ ma woo. nam sama combat man maa ngi lekk avance ak bébé Julle boobu sama dafa gaañu xam bébé Julle bu yàgg. ñu waroon ñu waroon bëri ma bébé Julle ñu waroon bëri avant doom boole. dem hôpital nekk sa papa entraînement hôpital doo mën dem entraînement doo ko tal. ma ni promoteur bi instant yii taluma pour bëri bàyyi ba si kanam xam nga. Mhm. léegi si laa dégg après mu mat semaine dégg ko mu combat moo caat yoof ma toog ndës àndal sama papa ñu koy ànd ñuy faju xam nga. Mhm. ba mu bëree bébé julli ba noppi gaa yi seet si ma wax ma ko man dem na ngeen laaj ko. léegi gaa yi na ma léegi faa nga bëreet kii Bébé Diouldé ba noppi. Bébé Diouldé faa nga bëree moom ndax boobu ba tay ñu ngi koy wax. man leen comme que tam làmb bu ñu bëggee gis bu ñu gisee dara rek ñoom loolu lañu loolu mooy am force. Mm-hmm. soo ko awee fa doo bëree. xam nga ma jël combat bi. mais moom daan bi ci bi ñu génn ak est ce que woo nañ la sa diggante ak caatu yoof nañ ma wax nañ ma mais ba tey lu ma wax rek man dama may kilifa. ndax sama papa daa am koo xam dafa ma ko dénk muy Lamine Faye Lamine Golo. Mm-hmm. xam nga ak ñu Moodu sama booy gaa yëpp man ñooñu ñoo may dogal ma soog a ñëw bu ñu tàqooree tay tay tay tay. mais mais mais lan la ñuy lan la ñu war bañ ci caatu yoof wala lan la ñuy war a ragal ci caatu yoof boobu combat bi taxawagul boobu ak léegi. non xëy na daal du jotagul rek. yuusu mi pare góor de. <laughs> barki laa la gis. mais waxal waxal la. dama la su ma jotoon la su ma jotoon avance léegi léegi Lamine Golo moom may seeraan moom may dégg bu ko jëlee léegi léegi indi ko mu yóbbu ko ngéwal xanaa ay wax day jeex. waaw. caat bu xam nga xam nga wax gi dafa neex. Mhm. mais moom ñemewu ma Lamine Golo ñemewu ma. barki Seydina Mouhamed. ñemewuñu la. billaahi walaay taalaay. Lamine Ngolo maa taxaw ma ni. man moom lan la ma nit ñi di ko ragal. waa simple nit dong la ah simple nit cadre cadre du bëri la ñu wax. moom léegi loo xam ne moom dafa dépassé ndax moom bu dee dañ ko ragal ñun bañ juddoo nekk liir génn liir nekk mag lañ jeexal ragal amul leen loo xam dañ koy ragal ndax fu ñu juddoo tamit ragal amu fa. waaw ah, géej waaye da yaa ngi dégg dama juddoo géej waaye ñëw maa ngi sama kër sama papa Pikine la am kër kon amul leen loo xam dama koy ragal suñu diggante bilaa walaay taal yee fi nekk nii ba pare. Mhm. Fallou lu ne def na taxaw. mu ngi nii dama bàyyi fenn. xam nga promoteur la leex loo xam ne du am. barki sëy dama leex loo xam ne carrément moom pour mbay sori. waaw Fallou Ndiaye mu ngi may seeraan barki ma yaakaar Fallou Ndiaye bu nekkee ma téléphone. yàlla maa billaahi wallaahi wa taala ak woowu ma téléphone. dama la lamb yàqoo si man. zin sama baabu dund ba laay. uyuma maa maa moom ñoo bokk ménagère yéen a bokk même manager mais même manager ñoo ko bokk. nga xam ne loolu warul métti bëree ñëpp ñoo bokk manager. xam nga xam nga loolu warul métti. mais Matar Ndiaye lu mu bëgg kii nangu ko. barki Seydina Mohamed Lamine Golo moo ni man mbërëm du bëreex man. mais lan nekk Golo moo wax loolu. kon xam nga ne ñemewu kon xam nga Golo ñemewu ma. moom moo ko ragal mais man man may bëree man. waaw may ko mu ñëw may ko mu ñëw. non non xam nga tey bu jëlee na man yaa ngi dégg moom lamiñ lay wax lamiñ la amal kii na wax lamiñ mais man am loo xam ne dama koy ragal sama diggante man moom. mais tamit bu fekkee da ne euh, sa papa da la dénk lamiñ. te lamiñ nanguwul nga bëgg mais dama loo xam ne lu sës par force da koy jël. lu mënut a ñàkk faa mu kon fi mu nii moom dafa sës. ma man maa sës te dama koy jël suñ ma fayoon léegi léegi ma jël ko bëri. caat léegi xanaa. <laughs> man kii. waaw man ma kaa bañ ci làmb. parce que daanaan la. Mhm. ñi ma daan da leen daan. dëgg la man tey manuma damay bëree ay ay ñoom Gris 2 te nu ma bëree ñoom. Mhm. parce que maa moom làmb moo koy waxtaanee làmb moo ko soxla. ñu soxla ñu combat bi de. Mhm. amateur yi ñoo soxla làmb ji. bu doon mën a man dong taxaw na bu yàgg instant ñu ngi wàcc suñu combat billaahi wallaahi taala bu doon bu doon si man rek la. kon fi mu toll nii bu la Fallou Ndiaye seet si woon wala keneen ku dul Fallou Ndiaye bu la joxee avance bi nga yóbbu ko avance euh, Youssou Ndour. si làmb la làmb laay def. te moom mbër la ndaanaan la kuy bëree moom day neex. mais kon jàpp est jàpp que jàppuloo ni combat bi taxaw ndax nee na fi mu toll nii moom dafa sës. waaw acca moo ko teree neex. bilaa walaay moo ko teree neex. mais la moo tax lan moo tax nga nga jàpp ne Lamine dala ragal Youssou ñemewu la. non Lamine Lamine Golo moo wax ba dëx bët ñu taxaw mu taxaw mu wax loolu xam nga bu ma rumeur la war dama ko dégg si vocal moo xam ne mais dafa taxaw wax sama mbër doo bëree sama mbër. lan la xanaa mystique bi dafa saf. wala xaw ma moo xam de xam naa ni expérience bi la rek li ma mën ci bëre mën naa moo ko tiital. <laughs> mais est mën a feeñ ci kanam Youssou Ndour. lu damay laaj xaw ma. waa léegi lan moo tax. yow léegi léegi yow loo gis Youssou Ndour ba man sama bëree moom warul feeñ ci moom. non dama ne da nga ne dama mën a bëree man ne est ce que sa mën a bëree dina feeñ ci kanam Youssou Ndour. ma mën kaa Youssou Ndour ma mën kaa jàngal bëre mën ngaa wax paa yi ñuy teg pour nga bëre. yaa ngi moom ku daax a bëre. waaye loolu nga wax nànk. non damay laaj parce que Seydina Mohamed maa daax a yaa daax a bëri Youssou billaahi taalaay. boo ñu tegoon tefes maa moom nii tefes. waaw ma def ay kale ma jàngal ko bëri bu ba jeexal ma ma jàngal ko bëri yeneen kale yu mu a defaat. yaa moom xeex. non loolu xeex kenn mënul xeex xeex mbirum góor la rek. képp doole. doole a ku gën a liggéey moo doole. Youssou waaye mën na laa jàngal ba nga bu jàngal ay kale ba nga jeexal boo paree mu joxaat la yeneen. waaw mhm. mën na nekk ndax nit du matale lépp doomu aadama nangu nga ne moo la moo la dàq boobu. Ah, loolu la wax. déedéet moom yoon la. yaa ngi toog kay waaw waaw. dama jàngal bëri ndax nit du matale lépp mën naa am am fa maam kii waxoon ne man du ma mën a bëri mu jàngal ma. ah boo bàyyi ba bésum bëgg laa jàngal dina yéeme. na bàyyi ba ñu ba comme ñu jàmmarloo ba pare ba génn si mu jàngal ma bëri. <laughs> Thiat Thiat fi toll yaa ngi xool sa waay di ko di ko di ko jéem a napp ak affaire demee. non ça man ma ngaa napp saa ñu ne nii booy géej waay la. nee na booy Géejawaay du ragal. mënut a weesu nit nit nit la xanaa ku ragalul ku mu gis kooku moom mën naa ko ragal mais ma koy gis nii may seen la laa koy ragal. <laughs> ah xëy na peut-être dafa am yu ne ci moom yoo xam te ne génneegu ko. Ah, baax na cooju. mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbëy waxtaan ak ñoom waxtaan seen carrière mais fi mu toll nii. fi mu toll nii ba sa combat caatu euh, Yoff taxawoon naka nga ko mën a waajee. waaw kon ni ma la waaj. comme que comme que promoteur bëggoon nañ ko muy tegee ci yow gannaaw dem yow ba nangu nga fi mu toll nii wala pare nga pour jël. combat yow. loolu ah, laa ko noonu laa ko. non mosu tagee si moom la tagee. waaw non ci yow noonu laa ko ah, moom dafa jàpp si ma la tagee. na nangu rek moom la tagee parce que moom bu nangoo. léegi te la tagee. léegi ma la tagee. ko kon de xanaa leer na kon. Mhm. <laughs> sa combat yaa moom bu taxawoon naka nga xam ne waajee. waaw comme ni ñu doon waajee combat rek ànd samay mbokk ànd samay nit ñoo xam ne dañ ma doon jàppale du ma si bàyyi kenn kon neen ñoom ñu ànd ba yàlla dañu ñu may ndam. waaw sama gaay yépp ñoo xam ne dañuy sonn si man ñu mu leen gisula waa Waalo waa Jaaminaar waa Séer waa Kolda waa Gambi Lamine Thiam champion ñun ñëpp ñu ma doon àndal lay àndal. pare combat bi yàlla may ma si ndam ma xoolaat leen. mais fan yi ñu gis ne euh, yow booloo di ngeen gën a booloo. Mhm. seen biir naka la demee. waaw loolu dañuy sant yàlla rek di ñaan yàlla mu yokk nag. Mhm. parce que mbooloo mooy doole quoi. loolu lay ñaan yàlla xam nga mu yokk Malick Niang mooy sunu tëdd fil xam nga moo di moo si topp après ñun booy ñu soog a ñëw quoi. Mhm. entraînement yi naka lay neex. yu neex lañuy def. ku si am combat moom entraînement yi neex ngay def yii dañ jëloon su lee door quoi mais ren jii bu saison continué woon da koy jël. bu continué si da nga koy jël waaw. ah fu ngeen teg loolu yéen ay victoire. am na ay victoire yu bëri sax est-ce que amuñu trois défaites xaw ma. loolu damay wut moom. trois défaites. dana am ah. ah wóol wóol ma Fallou Ndiaye ne mu ñëw sa waay pare na. lii promoteur yi ko soxla moo bëri de du Fallou Ndiaye rek de. lii nekkul benn groupe yëpp fépp foo dem nañu waxtaanee loolu. ah Youssou Youssou Youssou nag gisee combat bu mel nii. amateur yi ñëpp ñëpp a ko soxla moom. yaa ngi du am wala da nga bëgg xaalis bi yokku. ah non man moom suñ combat lu muy gën neex di dem gars ko gën a gën a bëgg. ñu toll nii ñaa moom bu ngeen bu ngeen. mais instant yii nii. Uh-huh. moom mënut a bëre kenn ku dul man moom tamit mënoo bëre kenn ku dul kon loolu mooy dafa sës. waaw ah. ndax suñu moroom yëpp am nañ combat. yéen ñaa fi des. ah yàlla yàlla def combat bi taxaw ndax xam naa ni am na promoteur yoo xamante ni ñoo ngi wër journée. bari na ci promoteur yoo xamante ni am nañ journée wala boog ñoo ngi wër ay combat spécial yoo xamante ni defe naa li mën na gànnaaw combat te mën na spécial. waaye yow lii promoteur yi ko soxlaa bëri promoteur mënul am journée bu gën a neex marque yi barki yàlla. géejuwaay ak yow. mënul ne waaw parce que géejuwaay dama fa dugg trois fois moo tax muy neex bi may troisième fois mu dugg fa. dugg nga trois fois géejuwaay am. bi may troisième fois ma dugg géejewaay moo tax muy neex. ba mu fa duggee. kenn ki maa moom ñu ànd guddee bëccëg. xarit la gàqu te gàqu dë bu ñu bëree moom. barki alxuraan laay kéemaan dafa feebaroon. <laughs> ku dë ah, waaw boobu jugee na eh, dë ndax moom bëri na suñu combat ñaari at def na a dafa dem Espagne yu ma dafa dem Espagne fee ñëw daw. mu ñëw naan loxo bi neex naa moom mayaat ko mu Espagne euh, moom bàyyiwaat mu sedd mu dem France ñëwaat ñu bëri combat bi. voyage dem na Espagne na France. kon xam nga ne kooku pare na. waaw pare moom voyagé ba mu ñëwee daa gaañ école ba. Euh, licence bi xam nga lan la moom na fexe bu fayul gàkku doo rek. échange mm. loolu la war a rêve loolu nga war a rêve bu wax ay dafa gaañoo gaañuwul sa doomu ndey la <laughs> fexeel nga ñëw jël jël ko revanche loolu rek la. na yàlla bu bëree ma daan bu neexee suñu waa si kàttanu yàlla. maa ngi ñaan yàlla si maa ngi ñaan yàlla si kàttanu yàlla combat bi taxaw. dama ne boo fa duggaatee géejaay boo fa duggaatee fii nga yem. xanaa ah. nag après ñu ngi mais comme bu duggaatee yàlla na yàlla def combat bi taxaw. mais Caatu Yoff ki mënoo ko jàng ba mu taxaw ne bu combat ak ñëwee mu daan. ñun ren suñu kii moo jël des. mais mais mais mais mais saison bi tëjugul. ñoo jël des. te xamul tax ñu jël ñu jël des sax. daa am ikiri kii waaye Lamine wax na ma ba ma kooku moo am ñaari defet ñun ñam ñett kooku rek ñu raw comme moom mu taxe ne daf ñuy jàng bëri loolu mun a nekk ñun école lañ yor. Ah, la moom. yaa ngi dégg juddoo si keppaar ñu mën a bëre suñuy mag mën a bëre. ku ne Mafal Seye. moo njëkk a daan ëmm seen. Alioune Seye. yaa may dégg. Mm-hmm. ñu toog suñu ñoom papa dem di bëri di ñëw ñu fekke suñu ay mag di bëri ji. kon bu nee dafa may jàngal bëri waxul làmb waxu mbër la. mais man avant may dugg ci làmb. Hmm. su ma mosaan dem appel yoof barki alxuraan kenn du ma laay dem taxaw di bëre suba ngoon. ay fa dëkk nag des fois ay moom laa bëgg la dama la dama la ñu ñu di bëre man si laa bokk samp suba ngoon kenn du ma daan. kenn du fa mës daan ci làmb. kenn nga kan nga fa mës a daan moment bii nga xam ne kii mu ngi ci biir làmb. du fa lim kenn kenn du ko fa lim mhm. affaire booy mënoo jàpp ñëpp mënoo xam ñii. moom mi si ñu mu ko doon daan xam. <laughs> yaa ngi mais mën na ma leer wala mën naa ko fa daan. la fa rek. ci Youssou. la fa xanaa xanaa doo lim defet yi nga fa am. amoo fa defet amoo fa defet. non mënul ne. te ma mënoo ñëw contact ak tefes te kenn du la daan. non non. ah moom nee na sax mu doon jot loolu ma ne. xoolal Ousseyn. yàlla xam nañu bëri. géej làmba ji Ousseyn làmba ji ñi di lim duñ ko boole si ñi dàq bëri si booy ñi ñuy bàyyi xeex duñ ko si boole. mais dañ may boole si dàq xeex dañ ma boole si ñi dàq xeex. <laughs> waa xeex. xam nga bëre. lu ma si xeex man fu ma fii dama naa fa daanee. waaw mais bu ñu ma boole suñu mën a bëri man xam naa ne mën a bëri te ki mu ku nekk ku mu la daanee boo xool ba ci biir boo ko tawee tome cinq la ñëpp. kon fi mu toll nii yaa daa xeex caat. ci kii. ba la na làmb yàlla def na làmb yi taxaw. parce que laaj naa ko léegi ku dàq ba mu ne moom ku ëpp doole mu ne ku ku gën a liggéey. Mhm. Uh-huh. dama dàq xeex mu ne xamagul. ba làmb ji taxaw lépp lu war lu ne dinaa ko indi dinaa ko def danaa gën a dolliwaat. moom xam man de xaw ma si dara li nga xam dara laa xaw Youssou est-ce nekkul da nga parewul woon léegi nga ñëw pare mystiquement après doo ko taxaw ne léegi damaa sës. non làmb ay biddiw la ay guddi la. Mhm. yaa ngi dégg. bu sa guddi jotee da ngay da ngay génn wane da nga da nga fenk da nga war a génn dem si yoon guddi yooyu laa toll. toll daa jàpp nga ni mat nga sëkk. waaw eh, Ouzin man yéen guddi laa toll. ndax instant nii. yow laa koy laaj. ah huit huit huit huit combats la am huit victoire. Mhm. sama neuvième combat ma am défaite. ma jógee si teg la waat cinq cinq victoire. kon xam nga ne man samay samay guddee gën a leer sax. dama la moo gën a leer ay projecteur laa taal. lamp ba pare teg teg si ay mais fi mu toll ñaar ñaar ñaar dafa dem fekk bàyyi ma fi. Mhm. kër ga maa des lépp fu mu toll nii. moo tax mbër mu may jël ku ne ku ne. na nga bu baax a baax dama wax ñëpp di nekkul pour moom pour ñëpp loolu liggéey at loolu kii doyul. loolu yow laa ko war a wax de sababa sababa da nga koy ñaanal yàlla. zaman la li ma bàyyil fii. mais li ngay wax ni li ngay wax ni nit gën a am ambition. bu nga bëgg a sa yaay sa say say loolu moo am nit ñi la gën a bëgg ambi ambition boobu man maay caat suñu kër. moo tax caat maa nekk booy wala yéegi di kër gi. si man la man kon maa la gën a bëgg kon. man maay taaw. maay sama taaw yaay pour nga xam ne maa la gën a bëgg nag. mais sama taaw yaay. yaa ngi dégg. kër ga ay raq jigéen rek laa am ma mag bu góor benn mag bu sama doom baay la maa ngi koy ñaanal monsieur Ndour. yaa ngi dégg moo man dama métti situation instant yii nii. ma si benn mag. weesoo sama benn doom ma maa ngi lay dégg bu baax yow rek laay dégg. noonu la fa demee. man man xale laa suñu kër. Mhm. bëgg noppal su may mag. te yàlla ma yàlla may loolu. te si làmb gi laa ko war amee. amiin yàlla mën mbokk yi gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo. bilaay yow ngay nibi rëy Lamine di wax rek boo demee nga naan Lamine ma si dina dina dina delloo avance bilaay walaay taalaay. loolu rek moo ma kii kii kii nii nee sës na caat. waxaw man dafa wax waxaw man ni yomb na de mais bu ñu nee signal nii problème bi foofu la. Thiadio Lamine mooy ñëw signé si. man du ma signé am naa ñu may signé. moom nag mooy ñëw man. man sama moom mooy ñëw signé combat gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo xanaa di bàyyi. Euh, ñu ñu ñu ñu sant gërëm tàggatoo bu beneen xool kii naan ko ndànk ndànk bàyyi caat mu yëngal caat <laughs> ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw damay santal yàlla di la wàcc seen bi xam santal su ma ñaari waaj bu baax xam nga di gërëm waa yow bu baax di gërëm déedéet bu tabax xam nga comme am itam fi yow la ñu koy gërëm bu baax baax baax di nga sant xam nga di nga ñaanal nag li ko li mu bëgg yàlla wax yàlla defal muy déedéet moom sa baax daal xam nga a baax la képp koy xew la daal si jeunesse ñu ngi xam daal di tukkee quoi gërëm xam nga Abdoulaye Diouf Sarr suñu ministre ministre de la santé di koy ñaanal jàmm di ko ñaanal wér gu yaram moo xam li mu bëgg a dem yàlla na ko yàlla defal li muy jaww laay xam li muy ahlu bayti rasulillah yëpp xam nga bàyyi Abdoulaye Diouf suñu xarit dañu koy siyaar bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla ko yóbbu yóbbu wéram xam nga di nuyu murid yëpp ci yaay yee xaadir yee xam nga laa yéene ñes yéene xam bàyyi ñu kenn di nuyu suñu waa koñ bu baax baax baax baax waaw bis léegi mu am incha allah ñu waaj incha allah. Youssou Adja. waaw. damay santaan yàlla di leen di sant sama ñaan wala ñaan sama papa feewu tëdd yàlla wax yàlla yëngu taxawal ak ñoom ñooy soob yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm. yaa ngi dégg di gërëm sama turandoo Youssou Ndour taay paa nga moom bët taay noor bët paa très bon maa ngi lay nuyu di ko déggee waaw. moom nag comme que sa turandoo. yaa ngi lay nuyu war na cee gën a jàppaat. waaw après nañ xool li ñu ñaar. Hmm. di gërëm sama grand Amady Adja sama grand Malick Gapo. Kéba Kande maa ngi koy gërëm Pape Mama Fall suma papa suma xarit maa ngi koy gërëm Anta maa ngi koy gërëm Ismaïla boo Ismaïla maa ngi koy sant di ko gërëm Assane Fall bu passé maa ngi koy nuyu képp koo xam ne sama waa ko ñi may àndal ñoo xam ne sonn suma sama patron mu tuwaat maa ngi lay bëgg bu baax a baax ak ñoom lay ñoom bës école ba ñëpp ñi fa am combat yàlla na leen yàlla may nangu si ñu amul combat yàlla na leen yàlla may combat di wax sama waa maa ngi leen di dolliwaat bëggee di leen sant ndax laa wax métti mm-hmm. boo amee combat ñi nga dëkkal dootuñu nelaw dootuñu def dara booy dañ leen dérangé maa ngi leen di nuyuwaat di leen jégalu di leen ñaan yàlla jaamoo kon ak fépp géej waaye Pikine Lamsar 1 2 3 ñëpp maa ngi leen di gërëm xam nga di santaat yàlla bu baax a baax a baax di ñaan ñëpp am jàmm. lii suma grand suma papa Balla Gaye de l'est de Elton waaw mais nu ma wax ba pare te du dëgg la waaw. gis ngeen mbokk yi ñu lay demee ci jàmmaarloo di kontaan ci ñoom bu baax a baax moom Youssou Ndour di kontaan ci moom ndax bi ñu ko génnee yombalal ñu ko ak ki nga ni mooy Thiatou Yoff ay xale lañ yoo xamante ni nii làmb dong lañ moo leen intéressé làmb lañ ñor waaye di leen wax ne làmb ak seen kanam di leen ñaanal seen carrière bi nga xamante ni moo ne ci kanam ndax fuuf li nga xamante ni moom ngeen weesu mm-hmm. euh, maa ngi nuyu ki nga ni mooy Pape Gueye Pape Gueye meeru jàmm dëkk futur maire boobu jàmm gën di ko ñaanal bu baax baax moo xam lu mu bëgg ci jàmm gën yàlla defal ko ko ak waa Fass gis naa ni mu leen taxawoo maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax bas ak ñi toog ñëpp di leen jox dig daje ci Wassare Lamb jàmmaarloo